asalaamaaleykum waa Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ak ñi ngeen ko àndanteel ñëpp di santaat nag yàlla suñu boroom moom mi nu may ñu fekke daaw ren jiit mu may ñu nu fekkee yàlla nañ ko fekke ay ati at tarafatu fekkee tey nag ñu ngi fii ci Touba Fall Mbuxeex Touba Fall Mbuxeex nag saa boo ko déggee xel yëpp dem ci jàmbaari lislaam xel yëpp dem ci yi fàkk tëdd xel yëpp dem ci bienfaiteur bi nga xamante ni histoire fakala macha allah moom moo partir de zéro ba indi fii tey euh, fi nga xamante ni si fa la mu xeex àgg lépp loo xamante ni si dem na feneen gis mu jekk mbaa mu rafet mbaa mu jaadu ci dëkk yanu na ko indi ko ci dëkk bi li ci ëpp solo lépp nag mooy wëlbatiku yaraat njabootu boppam gépp ba xiirtal leen ci dëkk bi ba ku ci nekk ci ñoom loo mën a am Touba mu xeex moo la ko gënal kooku nag mooy suñu waajur wu tedd wa di alaaji Modou Mamoun Fall ñu koy wax alaaji Ndama Fall na yàlla yokk leeram yàlla yàlla dolli yërmande ci kawam guddi gii di guddug Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni nit ñu baax ñëpp ci la ñu rawantee tey dëkk diine yëpp tanti diine yëpp ñu ngi riir waaye boo ñëwee tey fii ci Touba mu xeex xam ni fenn demul fii des la nga xamante ni si moom la sunu maam ju baax ja maam Ousseynou Fall demoon wuti te Serigne Touba mu defal ko ko wëlbati ko boole koog Cheikh Massamba Issa Dieye mu fekk si ko ci dëkk bi jox ko suuf ni ko na nga daan dëkk ba nangami mètre daal di koy sanc tudde ko Touba mu xeex barkeb Serigne Touba boobee ak ñaan ga nga xamante ne Serigne Touba jaarale woon na ko ca rakkam ju tedd ja ci Cheikh Massamba Issa Dieye ba wëlbati ko tey sëtub Cheikh Massamba ne ci dëkk bi am fi njaboot ak alaaji ndaama kon loolu mooy li nga xamante ni si mooy defarub nit ku baax waaye mooy liggéeyub nit ku baax alaaji ndaama nag tey ku ñëw fii ci Touba Fall mu xeex di nga xam ni nit ku baax dundam dina am njariñ waaye balaa gën a barkeel mu wane ginnaaw saa bu wanee ginnaaw nag njaboot ga muy barkeel mooy fësal liggéeyub kooke waaye tey boo ñëwee fii ci Touba Fall mu xeex fekk fi taawam bu baax bu yaru bii nga xamante ni si xel wam daan daw ba fi alaaji ndaama nekkee soppi ko benn yoon muy alaaji Mouhamadou Dan Fall nga xamante ni si mooy taaw ak ñi mu àndanteel nga xamante ni si ki nga xam ne mooy jëriñam topp ci moom di Modou Mbacke Fall ak rakkam yi mu àndanteel yëpp euh, kulim juum waaye buñ ci tuddee ku mel ni Massamba Fall di bàcc nga xam ne tey mi ngi ànd ak Tawfekh Production di def liggéey bu am solo bi nga xamante ni fa la jamono toll ndax nag tey fii ku fi ñëw xam ni liggéey bu Alaaji Ndaama war nañ koo fësal mu wër àdduna liggéey bu Alaaji Ndaama war na noo def la vie et l'œuvre de Alaaji Ndaama Fall def ko ay li nga xamante ni si mooy ay documentaire ndax nit ñu baax ñëpp war na noo roy ci kii Dakar la amee teranga fa la yaroo am fa njaboot waaye dani sama bopp ma la gënal du bañ naa la fa ma fas nga xamante ni sama waajur bu baax ba tuuran na fa ñàkkam maam Ousseynou Fall defoon fa ndigali Serigne Touba ja lu mu am fa laa koy yóbbu xirtal fi ak njabootam du étage du bépp immeuble mbaa bépp xeetu teranga booy xam ak njabootu Alaaji Ndaama Fall jombale wuñ ko Touba Fall mu xeex indi nañ ko ci dëkk bi jëmale dëkk bi kon daal li ñuy ñaan ci barkeb guddi ne ni ki gën ñëpp muy sallallahu alayhi wa di ngeen gi mu def ci la feeñ ndigali ki nga xamante ni si moo tax ñu woote fi muy Serigne Touba barkeb Cheikh Massamba Issa Dieye ak maam Ousseynou Fall mi tëdd fii ak maam Moustapha alaaji Ndaama yàlla na yàlla gën a dolli yërmande ci kawam sàmm njabootam yokku leen ba nga xamante ni si mooy seen yéene ci Touba Fall mu xeex ak mu xeex ak tund wi yëpp sama borom defal leen ko waaw waaw baax ñu ngi siyaar di la jox wàccuwaay bu baax a baax a baax comme da ngeen a ñëwoon ci gàmm gi ñëw xool si gars yi léegi comme fii moom nin la ko mën a càmbaree rek moom dëkk bi moom nii la quoi Touba Fall Mboxe la fii ñu ngi ci gétt gi nag yaa ngi fi gileem yaa ngi fi xar yaa ngi fi lépp daal mat na wax dëgg yàlla macha allah lépp mi ngi fi jàppandal na lépp lépp jàppandal na lépp nag li ko waral mooy guddi Mouhamed la Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa kon yaakaar naa ni ku ci def ku ci deful ñëpp dalaa war parce que ginnaaw yàlla ku mën rek moom la ku mën bay wax wala ngay lekk rek moom la kon lu ñu fi def rek dañ koy defaat rek. te bu ñu ñaanee ki ñuy wax Modou Fall ak Papa ginnaaw yàlla ak Alaaji Daba yaay Daba ak ku ñuy wax Ami Dieng daanaka ñoom ñoo baaxal ak Papa ñoo baaxal lépp parce que seen waajur moo fi nekkoon ba ñëw bàyyi leen fi ñoom tamit ñu ngi doxal ba léegi yàquñu ci dara wax dëgg yàlla macha allah ñoom daanaka daal dëkk bi jéppiwu leen parce que am na ñoo xamante ne mën nañ ko te duñ ko mën a def seen dëkk kon ñoom bu ñu ñëwee ba seen dëkk bi xàll fi lu mel nii di ko fi def di fi def bépp xeetu jaamu yàlla kon santaat nañ bu baax a baax a baax di leen ñaanal nag yàlla may leen fan wu gudd ak xéewal ba ñu mën a sori bu baax a baax a baax ci li ñuy liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sunu sante yàlla julli ci sangu-sang ya Seydina Muhammad doomi Abdoulaye jeeg Aminatu di sant bu baax Seexuna Ahmadul Xadim di jërëjëfal sama sang ba Serigne Saliou délégation bi nga xam ne moom laa taxaw seen biir Serigne Fallou jiite ko Baye Ndama di maamam di ay murid saadix nga xam ni délégation bi dara taxuleen a jug lu dul lu baax xeeñtu lu baax ñu ñëw seen dëkku maam ji ànd ak Serigne Fallou ngir bis bi ànd ak ànd ak murid yi nga xam ni ñoom biñ leen di bind sëñ tax sëñ Fallou nag mu baax mi waaye jëmmal na dëkku maam ji borom kur bandëng rafle mot jëma muut Cheikh Modou Fadal ku nu jàpp mu nu bàyyil mu dem sëriñ Fallou bàyyi ndaama jëppiwu ko mooy set bu nga xam ne yaru na teey na yiiw na yaatu na ngir jimmee yàlla ak rasulillahi ànd ak alasaan ak i xaritam ànd ak maxtaar mi nga xam ni mooy doomi sama baay dan faal muri saadix bi ak soxna ajaratu ami jeng moom Serigne Saliou borom jàpp ndala njur xabaan ndookaa ka ca doon xëy gi Serigne Saliou wasalaam auzu billahi mina sheytaan sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi ñu fitasel taseel sant bu baax a baax ci gàmm gi ak neex gi mu neex ak jàmm jiñ ci nekke lépp nag kenn waralu ko lu dul Pa Ndama moo fi indi nit ñi ñu ngi koy sant di ko gërëm di naan yàlla na àjjana di këram boo fu ñëwee it macha allah fekk doomam yu baax yi ñu teral la tatagal la defal la lépp lu julli di defal moroomu jullitam kon nag ñu ngi sant di gërëm man goro laa fi bintooy sama goro màggen mbàkkee ko jur mais dama mel ne ñëpp fii sama goro lañu ndax léegi rek. wax nañ ma ko fee bu ma ñëwee dinañ ma teeru dinañ ma teral ma ànd ak samay mbokk rusloo wuñ ma kon nag Touba Fall yàlla na màgg màgg bàgg ba toll na Touba gi ñu ko dippee ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum waa Tawfekh ñoo leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ne gàmm gi ñu ñu fi indi tey muy tuubaa Fall bu xeex di dëkku maam Ousseynou faal sëñ Touba yebaloon ko fi del indi faat fi sëñ Makhtar Diop mu indi nu fi jiitalal ñu sëñ Xaadim Diop. muy sunu jëwriñ di sunu sëriñ di sunu càmmiñ di sunu lépp ñu di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan mu sut baayam ba aw fan lii nga gis ni tey muy kuréel gii di daayira bii di Abdou Minane ni ñaan yàlla rek wiir ak wér la gudd fan di ñaanal sëñ Maxtaar yàlla na yaxam sedd ak Alaaji Ndaama Faal di wax ne nag daayira bi moom mi ngi nii rekk ñun moom danoo takku rek ànd ak sëñ xaadim jóob rek di liggéeyal yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ak sëñ maxtaat Diop ak maam Ousseynou Fall. di wax ne nag lii daayira bi moom mi ngi nii rek xale yi moom macha allah muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi waaw ñii rek lañ ko bëgg a jàppoo nag ba na ci barke sëñ Touba yàlla na yeex di wax ne nag daayira bi moom Pastef rekk fii daal dogu rek Pastef liggéeyal yàlla. daal ci loolu lan ne di gërëm nag njooloo mi yëpp commencé ko ci soxna Mbène ba ba ca ka gën a tuuti di soxna Astou Diop mu ndaw ca laa ko commencé ci mag ba ci ndaw soxna Mbène ba ca ka gën a ndaw di commencé ci jëwriñu xale yi tamit soxna Astou Diop ba ca ka gën a ndaw ndax ñëpp am positif ñëpp am dogu ñëpp am yéene ci bis bi di leen wax ne daal bis bi daal a ngi nii daal li kii naan alaaji ñaanal bis bi daal alaa daw mewu daal ñoo daal ñun daal nii rek lañ koy jàpp rek ba àjjana barke sëñ Tuubaa waaw. xanaa ñu kontaan si bisub gàmm bi rek nag di ñaanal ki nga xam ni moo fondement bis bi di alaaji Ndaama Fall duñ ko fàtte mukk dañ koy jooy te noppee guñ fa mu nekk yàlla na ko dàqal fa mu jóge yàlla na ko malaaka yërmande teeru ak sama maam Tafa Fall moom it xalifa bi mooy it fu ñu toll fu rek ñoo ngi koy ñaanal. asalaamaaleykum waa Touba Fall soxna Ndeye Niang moo leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay ci gàmmu gi ngeen la wax ni gàmmu gi moom commencé naa neex te dara xewagut ñu ngi dugg ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañu ciy génn ci alhamdulilah rabil aalamiina ci barke Serigne Touba di ñaanal Pam Dama Fall fa mu tëdd yàlla na xeppee àjjana Fall ci barke Serigne Touba. am daama dañoo bëgg yërëm ñu yiir ñi ñun waa Touba Fall. maa ngi siyaar bu baax a baax di sant kàddu yi cant rek laay génne yoo xam te ne maa ko commencé mu Modou Mamoun Fall ndaam ndax lépp mooma ndax ba muy ñeeku waa di ñëw ci dëkk bi métti na lool dañ na fi lu ne muñ na fi lu ne tam muy dëkku maamam nangu jalal ko lu ne lépp lu am rek Touba Fall mu xeex ko gën aki i mbokkam mu ñëw suqali dëkk bi defaraat ko ba kenn ku ne bëgg fee dëkk. ñi dëkkoon ci tund yëpp ñëw tuxusiwaat ci dëkk bi ngir moom buñ giseen Moustapha Fall ba mu bind téere di nu jox Ndaama Fall la lu am ci moom Ndaama Fall la kon lii nii mënu ma koo bañ a wax day lu fees sama xol loo xam te bu dee lu ma am leneen dama koy wax kon maa ngi sant képp koo xam te ne mu ngi yendoo yewoo Touba Fall rawati nag suñu ndijaay ji di Serigne Dame Diop ndax bi mu feebaree da koo jël moom it indi ko fii si këram jox ko aaw buru bii di Xari mu nekk nag nekkal nu fi loo xamante ni mbaaco sama yaay moo ko war a def wala soxna Maguette Mbacké tey moo ko war a def soxna jëmm ji def na ko jël na ko yor ko di ko yor muy mitim di ko yor muy mitim di ko yor di ko yor ba jébbal ko yàlla suñu borom fii njabootam nag taxaw di Modou Mamoun Fall ma koy commencé ci taaw di ndaam di kee dan waaw maa ngi koy commencé ci dan ba ci kidim caat maa ngi ñaan ci yàlla sunu borom lépp lu seen baay ba am ci wiiw ak ko baax yàlla na ngeen am lu ko raw mbaa lu ko sant naa gërëm naa sama xol a fees de ñaar bu ko teewe te Seydina Muhammad Rasulullah mi fi dajale barke bu guddi gàmm gi yàlla may na fan bu gudd ànd ko wér kuñ koy teewe at yu ne ci barke woy fa suuf ci kawam te lépp lu mu jëf ci Touba Fall gii yal ko sans fay ci njabootam te nu fekke ko ñun ñëpp te ñu ngi sant ñëpp leen gërëm di leen daan mbàkkee rakkam di ko siyaar faal di ko jox wàcc waayam lépp lu ñu man bu déwénee yal nañ lu ko barke yonent bi yàlla bàyyi leen fi bàyyi nu fi sàmm leen sàmm nu nu fekke lépp. sant yàlla rek ñoo ngi sant di leen sant ñoom ndax ñoom sonn nañ ci torop waaw lu nu man ñu ngi ko ciy def lu nu man ñu ngi ko ciy financé waaw ngir yàlla ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam yal na leen yàlla fay yonent bi fay leen. lépp lu nu am rek Touba Fall lañ ko jëmale ñoo ngi leen di sant bu baax seen papa jee tëdd tamit kontaan na ndax lii rek la bëggoon moom moom Pandama Fall kon nag ñoo ngi leen di ñaanal lu nu man ren bu déwénee yàlla nan man lu ko ëpp yàlla bàyyil leen ñu fi sàmmal leen ñu uuf na seeni i rakk suturaal nan nu ñi seen seen seeni seen tànta uuf nan nu ba seen papa génne àdduna ba tey ñoo ñu yor ذكر البقاء والقدم salaamaaleykum maa ngi tudd Marème Lo maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp te di leen di gërëm di tàmbalee ci nuyoo bi kilifa gi ki ci gën a mag ba ki ci gën a nekk ndaw yéen ñëpp nuyu nañ leen ndax soo limee rek da ngay juum moo tax duñu lim dañuy nuyu ñëpp tey ziar tey ñaanal borom kër gi mi jiitu ji yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci barke yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak bépp way dawlu bu mu fi fekk ak bu ko fa fekk ñoom sant maire di leen di gërëm ñoom ñëpp commencé ci mag mi ci kër gi ba ki ci topp bi ci toppaat ñoom ñëpp nuyu nañ leen sant leen di leen ñaanal ñoom itam yàlla guddal seenu fan wéral seenu cër te fekk lépp te kenn bañ a séddale dara seen ginnaaw ñoom ñëpp kontaan nañ macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar bu baax ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad tey jii ñu ngi ci pàkk bu barkeel bii nga xam ni ñu ngi fii Touba Fall ci kër Mandiaye Mandiaye nag ku ko xam ne bay Ndama mooy léppam ñu ñëw ci pàkk bi dend ak soxnaam su baax si nga xam ne mooy aawoom di jigéen ju baax ju yaru ju yiw uuf rakkam ji nga xam ne ñoo bokk Mandiaye ngir mën a liggéeyal yàlla ak rasulullahi soxna Mati Mbay seen mag ñu nga mu nga ne taxaw ca waañ wa nga xam ni ñoom Serigne Saliou nee na xeetu jaamu yàlla yi ak cant féete kaw ñu ne ko luy ak cant mu ne ren di toog gaay ñam woote ne kaay leen lekk ma kër Mandiaye nag dara manque fi ñu ngi yëkkati kàddu gi di ko jox soxnaam si bisimilah soxna si nee na mi ngi nuyu mbooloo mi nee di sant ñëpp di ñaanal sunu kilifa bàyyi laaji ndaama yàlla yokk ay leeram maam Tafa maam Ousseynu ñoom ñëpp ndax tey jii soo amee ñooma ñoom la maam maam bàyyi ndaama su musaana ñëw fii ñu nag moomay ànd kon daal nun dañuy sant rek di sant sunu borom moo njaay mu baax mu yaru mu yaatu mi murit bi ma njaay moom waaw loo wax ci ma njaay am na loo bàyyi kon nañ ko ñaanal yàlla dëgëral ko yàlla guddal fanam te barkeel ak njabootam ci darajey pàkk bi ak bis bi ak bisu juddu Seydina Muhammad ne di ñaanal nag di ñaanal nag Muhammadan moom mi nga xam ne moo jiite njaboot gi njaboot gu faalin gépp topp ci Modou Fall mi Modou Fall mi nga xam ne moo ma yar ba may ma Momadou Ndiaye ak soxnaam ak njabootam yëpp su ma limee juum yal na yàlla bég yal na yàlla defal nu jàmm ak sutura sëñ góor mi nga xam ni pàkk bii sëñ góor am na lum ci xam loolu nag doy na sant yàlla. maam Ousseynou Fall bi nga xamante ni daloon bind téere daloon bind ba téere yi ba ba fooy jeex léegi mu demoon ndànd nag bi mu demee ndànd doon jëndiwaat ay fooy ñu ko maam Cheikh Ibrahima ah sëñ bu tedd ba dem ma nga fee ca euh, ndànd mu ne xaaral ma dem jaara ji ko bi nag ba ko ziara la ko di ndongal ndongal woon sa tànk ko damaa ñëwoon ndànd doon bi sam ma nekkal bind katu téere li ma doon bind euh, fooy yi jeex. ma ne woon naa ñëw ndànd euh, euh, jël ko fi ne ma yaa ngi fi nag ma ñëw doon la ziar mun ko tee ngaa ñëw ma defal lu gën euh, bindi téere mun ko am ba faal boo ko defee def ci mun ko jaaral nii sëñ Tuubaa nga njaareem boo demee nga daal di bind fooy jox ko ni ko boo ab téere ab baxa li li li wala bataaxel daal koy jox ni ko boo demee nga joxal mag ko sëñ bi te toog diglu ko mu jox ko mu dem jox ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa toog diglu ko daan daan ni Masamba li waral ñii nekk taalibe ma sëñ sëñ Masamba Mbàkke mun ko Masamba mun ko Mbacke mun ko am dongaa ngi ni jëlal nga liggéey boo pare nga delloo ci ma nga delloo moom sëñ Masamba yore ko ba yàgg mu daal jëlaat maam Ousseynou Fall daal ko jébalaat sëñ Touba bi sëñ Touba defee ci moom li mu def da ko ne boo jëmee ci dëkk ba ngay dem boo fa delluwaatee boo fa demee ba jublu lu tollu xelu ndaw na nga fa sanc tuddee ko Touba Fall Mbacké te it ma wax ne balaa ngaa ñaan moom ci Baye ma laa gisee yére woo xam ne ci sëñ Masamba la bàyyi ko loolu nag bàyyi ndaama won na ma ko yàlla nu ko yàlla fayal yàlla nu fekkee déwén ci daraje rasulillahi ñi ngi fii nag ci kër suñ suñ Modou Fall mu laal la ñu ngi koy siyaar bu baax di ñëw ci kër laal la di ko siyaar ci weer wu tedd wi nga xam ni mooy weeru gàmmu bi ñu ñëwee nag ñu ngi ñëw fekk ñu baax ñi di defar ndékki li ak cant gi ndax Serigne Saliou dafa wax ne ak cant dara gënu ko féete kaw ñu ne ko luy ak cant mu ne rendi toggaay ñam woote ne kaa ne lekkale ma moo gën moo gën defar junni jumaa ñu ñëw nag kenn ci nga xam ni moo jiite cant gi mooy ñi nga xam ne ñooy ay mbokku laal la. ñoo ngi leen di ziare bu baax eh, di jiital sunu ziar di ñaanal borom dëkk bi di sunu waajur Baye Ndama Fall di ko ñaanal fa mu ne suñu borom dolli ko yërmandi ak njégal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, mbokk mi taxaw yéen nag mooy Abdoulaye Fall mbokk daayira wilaya Serigne Mbacke Soxna Lo ndax bu ñuy sant. tonton Modou Fall ak soxna Lalla foofu la ñuy tàmbalee cant gi ndax fii ndigal moo ñu fi indi suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Alioune Mbacke Gaynde Fatma yàlla na ko suñu borom dolli yërmande di sant bu baax soxna Asou Gaynde Fatma ndax tey jii bu ñu xamante soxna Lalla ci moom la jaar muy suñu sëriñ di suñu xarit am confiance ci ñun confiance boobu tey jii moo law ba ñëw ci tonton Modou ak soxna Lalla gàmmu gi nag alhamdulilah sant nañ bu baax ndax. yàgg nañ ko fee teewee ay at a ngi nii ñoo fi ne ñoo yor organisation bi ànd koog waa kër gi soxna Lalla ak tonton Modou ak waa kër gi ñëpp ngir bañ a lim rek ngir euh, wax dëgg yàlla ni ngeen ko gisee rek liggéey bi nii la dañuy ñëw deux jours avant gàmmu gi ñëw ci installation bi séntu gan ñi nekk ci toppatoo gan ñi bernde ndékki añ reer yi lépp daal loo xam ne moom war na ci bis wax dëgg yàlla fii dara manqué dañuy sant nag dañuy sant bu baax dara manqué wu. waaw. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi ñuy jëpp fii ñu ñëw tey nag di Touba Fall nu fas fi yéeni waxtaan tey ci dunduk Seyduna Muhammad ak ko gane àddinaam di ci waxtaan mag ñu baax ñi di ci génn seen taarix fii nu bokk yenn tey nag di Touba Fall Mboxeer fas fii ne màggale guddi Seydouna Mohamed kan mooy Touba Fall maam Ousseynou waaye kan moo waral nag nu di fi màggal di fi gàmmoo Alaaji Mudu Maamun Ndaama xale war cee def benn waxtaan ci kan mooy Alaaji Ndaama lan moo doon dundam naka la doon dunde ak lan moo waral Touba Fall suñu toogee ak Alaaji Waali Seen mi nga xam ni yàlla daf ko booleeg Alaaji Ndaama ci ndaw ba ci mag musul dem bàyyi ko ginnaaw fu mu jëm yóbbaale ko lu mu xam wax ko ko lu mu yor jox ko ko ñu ànd màggal gi kere ba nu ko tàmbalee ba tey jii Alaaji Mudu Maamun dem bàyyi fi njaboot gu baax gi kon Alaaji Waali danu nu ñëw ci kanam waaye dañuy wàcc jox la kàddu gi nga am seede yoo xam ne da nga koy def ci alaaji Modou Mamoun def ko ci bis bi ak lan mooy sababu bis bi ak illay bis bi lan la kon waali bisimilah. bu ñu demee tey jii ba gàmmu mel nii mu mel tey jii ci Touba Fall mu sunu borom mi ko jaarale ci alaaji Modou Mamoun Ndaama dëkk bi nag Serigne Ousseynou Fall ko sanc dafa jàngale alxuraan yor fi dongo yi di maamum gone yii fi daje. di mbokkum réew méppit dëkk ci dëkk bi di waa di waay alaaji ndaama ak kum ko bokkal Baye Mbaye Fall mi fi nekkoon nu ñëw alaaji ndaama di ko fi fekk ak kum bokkal sëriñ waseynu te muy teraanga akuk taalibi akuk kilifa ndaama jox na ko cër boobu ba mu mat ci dox ak ci wax ak ci jëf ak ci kóolute ak ci doylu ak jox ko cëram ba mat sëkk ci waajur gi ndaama yéene na ñëpp jàmm yéene na ay bokkam jàmm yéene na leenug wér yéene na leenug man yéene na leen ak am kon tey bu nu demee ba gàmmu gi tey jii nu di ko def teyaat fii ci Touba Fall Mbuxeex alaaji ndaama daan nu jiite nu daan ak moom di ko def yàlla dogal mu wujji sunu boroom bàyyi fi njabootam gu baax gi nga xam ni dan mooy seen mag moo Moodu seeni rakk rekk a topp ci ñoom góor jigéen mag ak ndaw ak soxna Kumba mi magam ci jigéen ñi wax dëgg yàlla gàmmu gi niimu mel ni la mas di mel naka jekk nii la mel rek ni la mas mel ndax Moodu mi koy woote ak dan kenn ku ci ne say moroom ak say bokk ak réew mi ñu ñëw fekk si la fii ànd ak yow ci bés bi lu ci war ñu ànd ak yow di ko def teewlu la ci gàmmo gi ñaan lu la la yonent bi guddi gi rawatina nag tey jii bi alaaji ndaama ñi bee ci sunu borom ci àjjana ñu ñëw nag ñëpp daje fi yéene fee daje ñaanal ko sunu boroom yokk leeram ñii mu fi bàyyi it sunu boroom yokk seenug man ak seenug fan ak seenug am nuy màggal Seydouna Mohamed fii ci Touba Fall Mboxeex àndante ko nag ak tund wi yëpp ak réew mi ñëpp tey ji Touba Fall rek la ñuy yendu tey te fi lañ fas yéenee fanaan di màggal Seydouna Mohamed kan nag moo ko doon màggal El Hadj Modou Mamoun Ndaama fii rek la dëkk ndax Alassane mi ko jóor Alassane ak Cheikh ab Koumbi Gueye mi leen jóor ak aussi ni ma dëkk bi ak aram patik ante mu rek ñoo bokk alsante mu ngoone kon su wëlbati kuwaatee nag defal lu lay am solo lii tax ma ne si dëkk ci dëkk moonu talil dëkk bii ba mag si dem jafewoon fi lool ñëw bi dem gi ak dikk gi metti yéemul ca loolu mu indil nu courant taalanu làmp yëpp nuy niitu bokk ci réew mi loolu mu indil nu hôpital defal nu ko fii ku wopp di faju ak pharmacie tudde ko waajur mu baaxu def ci maternité indi ambulance teg ne ku na faju di dimbali nit ñi di leen dimbali ci soxla yi defaraat dëkk bi defaraat kër yi kon alaaji Mourou Mamoun Seydouna Mohamed mi ñu doon màggal di ko màggal tey jii ci jëf jëf na jëf ju jar màggal ko wax na wax ju jar màggal ko dund naa noonu la ko jar kon daal xale yi dañuy ñaan yàlla mu guddal fan yi wéeréel yokk man gi kon alaaji Ndaama tey jii bis bi nga xam ni mooy bis bi yonante bi tama daa ko taxawe tama daa ko taxawe ak waa këram nag ak njabootam li ko dale ci soxna Maguette Fall soxna Soda Sall soxna Maguette Mbakke soxna Khady Lo ni ñu daa ñëwee ñoom it ñëwee nañu ni ak ñañu daa àndal ñëpp teew na dan ak Ami Dieng ak ñamu daan àndal Samb Fall mi ñu daan àndal ñu bàyyi ko Mbuur ak ñi ñu daan àndal ñëpp teew nañu guddi gi it Mbaye mi ñu muñ ko tuddee ak Serigne Gueye ak Alaaji Taala mi nga xam ne nag mooy rek ku Alaaji Ndaama ak njabootam baara ak ñi ma àndal ak bokki pëleen yëpp teew nañu teewal ko taxawal ko ndax bis bi seen bésa te nun ñëpp noo ko bokk tubaarkàlla Fall ndega yaaram kon li nga wut yan xeel ak jàmm salaam waaye maa ngi sant yàlla bu baax na julli yoon di julli bi sant naa sama càmm moom kër gi maa ngi sant borom kër gi dan Mbàkke Fall sant jabaram ami jàng tubaarkàlla mooy aw bi kër yi yàqul kër gi sant Daba Samb tubaarkàlla ñoom ñoo jiitu si kër ñooy ñooy mëgg kër yi sant na fi tubaarkàlla mu ñoom ñoo jiitu si kër gi waaye balool vioseur maa ngi sant sama jébbi ami jéey mbay moo jiitu kër gi mooy aw mooy aw buuru këram tubaarkàlla su mbay nag ñoo ne ko doom ba ko dàq ñu sama ñaari jenn te yàqun dara nag loolu kenn macha allah. ñëw nag sama kër càmmiñ alsaan xam ne lu yàgg dëgg la maa ngi moom pëti ba gara la woon ak ndeyloo ak màgga saar macha allah sama jeeg jaa ngi nii barki yeneen tibi jàmm gàmm gi ñu ngi siy dugg ak jàmm yàlla nañ ci génn alhamdulilah rabbil alamin di di santaat tamit yaawa yaaw faal xam ne lépp moo ma moo bëgg lawbe yi moo jàppale lawbe ak temps ami jeg nga xamante ne mooy aaw buuru këram tegu ci taan daba ak taan na fi macha allah sama jabar na jaay jooju macha allah gàmm gi dara manqué wul lépp neex na. da ngay lekk ba suur da ngay naan ba màndi da ngay tëdd ba yaandoor. yëngal ko yëngal di ñaanal première premièrement initiateur bi di suñu maam maam Ndaama vraiment quelqu'un boo xam ne mënuñu ko fay lu dul di ko ñaanal rek fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee gàmmu gi nag vraiment ñu ngi si kontaan di ñaan yàlla mu gën a jëm kanam ñu dem ba sët sëtaat yi di ko di ko jiite ñëpp fekke kenn bañu ute incha allah kontaan nañ trop loolu daal laa moon si lu ma si wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah. Alaaji Ndaama Fall di ñaan yàlla yokk leeram mook suñu maam yam fekk ñoom dañ Ousseynou Fall ak njaboot gi yëpp tuwaar fakal la macha allah. di wax ni ñi ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam si bis bi mu ñu fekkal fekkee ñu fekkewaat ànd ko ak suñuy wóllëre ànd ko ak suñuy mbokk ak xarit di jiital si lépp nag suñu kilifa yi ginnaaw suñu waajur yi ñu ngi jiital nuyoo bi ak sant gi ngërëm li suñu mag yàllaa ji dan faal <coughs> tuwaar fakal allah di rafetlu taxawaayam tuwaar fakal macha allah li olof di wax naan mujjewoo puso mu réer tuwaar macha allah lépp loo xam ni tey Baye Ndama doon na ko taxawu tuwaar macha allah lépp kenn gisu si absence bi nga xam ni sunu waajur woowu tey dem na xanaa dina wéetal xol yi waaye toir fakal macha allah sunu grand euh, mi ngi si bay waaram toir fakal ak i rakkam di ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay ñun nag ay wëllëre yi kër gi lañu ay doomu kër gi lañ ndax defe naa ni fii bi ñu fi commencé di gàmmu seeg léegi si je ne me trompe pas c'était les années 90 boobu sax on était des élèves euh, boobu école primaire ndeysaan dañu doon Euh, profité sax ndax xam nga ni thème le lendemain nga dem jàngi di ni mel di sant daal ak euh, gërëm rek moo tax euh, mënuñu wax asalaamaaleykum man la Ndeye Rama honorable Ndeye Rama Gueye ci tey Touba mu xeex frère Thio ak ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal ànd ak délégation parti démocratique sénégalais ñi nga xam ne ñoo ma accompagné euh, muy Kiné Camara soxna Diarra Guèye ma jigéen Ndiaye ak sama borom kër bi nga xamante ne bii ñoom ñoo ma ma ñëw fii tey teewal si euh, waa Géejawaay fii nga xamante ne bii moom mooy Touba Fall euh, ñëw seet sama frère sama xarit mënuma ko fay nag parce que lii moom ñu naan ku la yëg nga yëg ko te daf ñu yëg élection yi nga xamante ne moom la ñu génn dañ ci àndoon mu jàppale ñu ci lu bëree bëri sax moom ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal ak euh, son frère Bàcc Masamba Male ànd ak ñun di campagne ñun ba campagne jeex su ma yeboo ne yëre yi ma sol ci campagne bi yëpp moom mi soxnaam moo ma ko ñawal te lépp moom la kon duma def lu dul di ko sant di ko gërëm lii nag mënul woon a ñàkk dama ko yàgg a mbébét pour ñëw fi yàlla def ne tey nag la ko yàlla tudd euh, ma ñëw tey teew si ànd ak délégation bi nga xam ne moom laa àndal euh, di sant di gërëm di ko ñaan di ñaan yàlla nag mu yàgg ko def ay ati at waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah. di nuyu waa Grain yëpp di leen sant di leen gërëm waaw moo du mbay jaarale naa ko ci sa loxo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di ñaan yàlla rek lépp lu luñ fi ñaan tey jii ci guddi yonent bi rek yàlla nangul ñu ko incha allah merci beaucoup. teewaay gi nu yàlla may ñu defoon ko daaw te fekkewaat ko ren ñu ñaan yàlla suñ boroom mu mayaat ñu ñu mën ko teewe déwén te kenn bañ a manqué suñ defal ñu nu ànd ko gu ak xéewal gu bari di sant bu baax ci teew gu nu teew tey jii fii ci ngir fedd li tànki mbokk tànki wu kóllëre diggante sëriñ ma Masamba ak alxaaji Ousseynou Fall mi nga xam ne moo nekkoon ci dëkk bi ak ñam ñamu ko àndaloon waaye nag alxaaji Ndaama Fall mi nga xam ne moom lañu ëpp lu nu wuy si fii noonu di ko ñaanal moom itam yàlla sunu boroom dolli ngërëmam ak yërmandeem fa mu tëdd di wax ni at mu jot yàlla dogal nañu ñëw fii tey jii nag ñun waa kër sëriñ Modou Faty Khary ci ndigalul sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy xalifaam yàlla na ko sunu boroom dolli wér ba li mu yéene lépp ci buntu kër ci ci liggéeyal sëriñ bi mu àggale ko te yàlla dolli yërmande ak ngërëm sëriñ Cheikh mi nga xam ne moom la fa wutu noonu kon ñu ngi fi teewal nag njabootu Serigne Modou gépp ci turu sëriñ Fallou ak ñam Cheikh Mouhamadul Bachir wax nañ ne jàppar naa ni tamit jataay bi ñu toog lenn ci bunt kër yi Serigne Modou yëpp seeni ndaw a ngi toog ñu ñëw nag fekk fi sunu bàjjan soxna màgget mi nga xam ne mooy soxna màgget ñaan yàlla it <clears throat> ñun ñii nga xam ne ñoo ñoo ko ñoo ko teewe ñu yàgg koo mën a teewe di sant bu baaxit nag njaboot gi nga xam ne ñoo fi ñoom lañ fekk tàmbalee ko ci sëriñ Mahmoudan Fall ak sëriñ Modou ak njaboot gi yëpp waaye sëriñ Ousseynou mi nga xam ne mooy doomi soxna màgget nga xam ne taxawaay bi nga xam ne taxawaay bi nga xam ne war na soxna si lépp moom la ko teg ci loxoom ngir kenn ku nekk boo ñëwee fii dana la dalal berndeel la ànd ko soxna si ak soxna Ndey Tuuti mi nga xam ne moom ci kër gi la bokk ndax moom daanañ ñëw sax waaye nag tey moom ñëw gi sëriñ bi daa daa daa daa doomam dafay jël soxna doomam dafay jël soxna moo tax daanañ ñëw waaye nag daa da da da cee boolewaale nag xam ne nag dafay amu gorole <coughs> sëñ Seex muy sëñ Seex kaalam sëñ Seex mi nga xam ne moo yor soxna Ndey Tuuti kon bu nu ñëwee ci ci ndigalam seet si sunuy mbokk waaye seet si sunu goro ñu li war lépp tamit ci wàllu bernde ci wàllu yépp tamit ñu defe ko nañ ko war a defe yëpp nu it ci njaboot gi yëpp ñu siyaare leen dellu siwaat fii kon ñu ngi ñaan bu baax li nga xam ne nag mooy solos bis bi nag génnut liñ fi def mooy jokk bokk te loolu lañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggal jokk bokk rek moom la ñu jublu woon ci lii ñuy def te kii nuy màggal tey loolu dañu koo diggal te bëgg ko lool bi nu ñëwee it mbokk yi nu fi fekk itam teral nan te loolu it lu yonent bi sallallahu bëgg la teral nan ñu te teraanga joo xam ne mucc na ayib kon nag ndegam màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi rekk lañu ci jublu te xam ne tey fépp ci àddina bi walla fi ëpp ci àddina bi ñu ngi koy def rawatina ci biir réew mi ñoom nag ñu am ci xaas di ko defe fii ñun tamit kon buñ ci ñëwee dañuy ñaan barke bi nga xam ne moo fiy amee rek